alhamdulillahi mu lil ijay wa zamali man kaana bi adarin aw kaana bi safari alhamdulillah alhamdulillahi allazi lam yasal aliya wa lam yasal fi ulaahu saniya iza amaltuhu wajadtuhu maliya وإن عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونظرة بعين رحمته تسير الكافر وليا الجنة لمن أتاعه ولو عبدا عبشيا والنار لمن عصاه ولو شريفا قريشيا أحمده سبحانه وتعالى حمدا زكيا wa ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala wa ashaabihi wa sallama tasliman kasira ayuha nnaas bokk julli ji bokk taalibe yi bëgg aman ay leer la tuuti rek lu jëm ci bis bu màgg bi nga xam ne ci leen jëm te mbokk mi doon ci waxtaane ñu koy wax màggalu Tuubaa wares naa xam na muy lan wares naa xamit lan lay jëriñ ak lan moo ko sabab magal ak Tuuba dafa bokk ci bis yi nga xam ne sama borom moo koy jagleel gaa yu baaxam yi saa yoo xamee ne jëf nañ jëf joo xam ne ni yayoo na ñu takkal leen garaat loolu boo ko xoolee da nga koy gis ci tabaski gis ko ci yu baree baree bari ay ay wàcc ci ay góor yàlla yu fi mas a jaar yoo xam ne yëpp yàlla day wane ne ñoom de dëggal nañu sama digganteeg man te jëf nañ jëf joo xam ne wane na ne ñor naa leen màggal ak Tuubaa nag bokk ci taxawaay yu mel noonu kenn ku ne xam na ne sëriñ bi bi mu fi ñëwee fekk na fi julli fekk na fi woor fekk na lépp ñu koy def ci wàllu jaamu yàlla mu màgg ci yaru ci jàng ko yàlla def jamono soppeeku ba ñeneen ñëw fi andi fi leneen bëgg fee doxale leneen mu bokk ci ñi nga xam ne dañoo taxawoon jàmmaarloo ak ñoom na ñoom seen taxawaay ak seen gis-gis kenn mënu ko soppi tawaajuhi lilasi yulil maqaama bilaa ijaazatan li jihati shaami wa nee na benn influence la am bu yàlla suñu borom nit ku xonq duma soppi nit ku weex du soppi bu am solo tubaab bi na ko kon dinañ jëflante ak yow te aman ci yàqin lool ndax ñi ko masen na taxaw seen diggante ñëpp ak ngir jàmmantoo ak jàmmarloo dañ leen a faagaagal sama boroom jaayant wala yón sëriñ bi jaayanteeg sama boroom xamal na ko loolu moom taxawaay bii la ak yeneen yeneen sax ndax na ne sababu xaybati an allah araada an anaala minhu jaa wa an akuna shafian li xawmi wa an akuna xadiman fi dawmi ne na bokk na ci li tax ma dem ci géej gi mooy daraja ju ma yàlla war a jox te il faut ma liggéey ko waaye itam ma romb sama xeet ba ëllëg ñu mën a texe ak ma liggéeyal yonent bi sallallahu wa sallam liggéeyal boo xam ne ni kenn mësu koo liggéey ci kaw suuf nee na bokk na ci sabab ci sabab yi xam ne kilifa bu mag bu bokkoon ci mag ñi yar moo ko te ma dégg ko sëriñ bi dafa xool gis ci kaw si suñ borom bi ñu bind fa ne bépp tooñ bu waay def am na lu ci yàlla war a teg ma ne sama boroom man de may topp dafa bari dama mu bëggal ñu mucc si mu ne ko nungul naa la waaye bi mu demee ci géej gi ba ñëw mu ne ko lii ma ñaan dafa rëy te lii nga topp bari te ñëpp jubuñu il faut nga delluwaat liggéeyaat moo waral dem ak gànnaar gi il nga liggéeyaat mu dem foofu liggéey ba sama borom may ko daraja jooju nga xay képp ku ko topp te na ko war a toppe nga toppe ko ni moo la féete fépp kon bokk na ci li ñuy leeral tam ñu xam nan lañ koy toppee ndax ñu bokk ci ay gaay kon dem géej gi mi ngi noonu mbokk mi leeral na ci lu bare bare du jar ñu ci xóot liggéey la nag boo xam ne liggéey na ko ba mu mat sama borom fay ko ci fay gu rëy comme jaar jaar yi sëriñ bi leeral na ko léegi ci biir fay googu ma ko fay nag la ne bi ma defee contrat bi ak moom te war a dem bis boobu ci lay commencé man di si sant sama borom bis boobu nag daana def saa yu jamono ñëwee diirub li mu nekk ci géej gi ak bi mu ñibbisee luñ ko masaa teg ci ay jafe-jafe ak i tiis tiis sama borom da ko yokk ful ko bu doon téeméer ñu def ko ñaar téeméer noonu la nekk ci géej gi samaaniya xijjaja ila xalila diir bu yaatu ba nim ñëw njaareem nattu bi teguwul benn bis nag mu toog di xaar natt bi di xaar natt bi ba yàgg sama borom ñëw na ko nattu bi jeex na fay rek moo ci des naa la xamal ne tam lépp lu ma la daan teg ci aw tiis par at noonu laa lay xéewalati xéewal bu ñëwati at mu ne ngay ñëw moo gën a bari ga fa nekk dinaa la tegal lu tollaat noonu moo tax suñu abdulaat nanu ba yowmal xiyaam sax di amut ay bis ak i guddi ak i bëccëg amut ay weer amut ay at waaye li ñuy xamee ne at mi del siwaat na mooy saa yu màggal Tuubaa ñëwee sama borom day yokk xiiwal yi ba ñëpp xam ne ki doon liggéey muy sëriñ Tuubaa yàlla nga koy fayaat kooku mooy sëriñ Tuubaa mu ne nag yàlla may na ko ci bis boobu loo xam ne nii ak cantam de boppam doyu ko ci képp koo xam ne sama mbég sa mbég la bu ñëwee ñëwetee nag ma ci sant la yàlla kon yaakaar naa ne bis boobu nun murit yëpp war nañ ko gën a bàyyi xel gën koo jàppaat na it de ñëw ma leen moo gën tabaski waaye yéen de moo gën ci yéen tabaski ndax li ngeen ci am amuleen leen ko ci tabaski moo tax mag ñi fonkoon nañ ko lool di bis bu jara fonk noonu na lu ci waay man rek di dale ci giléem ba ci ginaar ne ma sant la yàlla kon na ko ñëpp bàyyi xel nit ko donte daa am biskit mu mën a saraxe sax wala tàngal wala lu man doon sant leen ko sëriñ bi ne na képp ku ko def yomal xiyaam pay gi ma sama borom di fay du la um te foofu de kenn ku ne soxla ñu fay ak suñu borom kon bisa ngi boobu boo xam ne ni xéewal la ci biir xéewal ginnaaw bi ñu yàlla xéewalee sëriñ bi nga xam ne léppam xéewal la kon nañ ko fonk te bàyyi ko xel te def si luñ man ak luñ mënut ndax koom la moo xam ne ku ko xaman da nga koy dajaleel at ba at lépp lu am nga dugal ko ci ndax commerce la boo xam ne laa yeboo du lam bu mukk loo ci def ñu fay la lu ko ak mag ñi fonkoon nañ ko lool kon nañ ci góorgóorlu képp ku mën a dem de loolu mooy ndigal li nga dem màggali Tuubaa waaye képp ku mënta demit na xam ne màggal ko mooy farata ji ndax sëriñ bi loolu la digle woon noonu fu waay nekk dama fa santale sama borom ca kem nam ko ma ne xëy na ay sabab moo ñëwoon ba tax ñu koy defee tuubaa ci ndigalal kilifa te muy sabab yu wóor kon ñàkk dem tuubaa bu kenn jàpp ne tax na nga war a ñàkk màggal na nga fexe ba bisu màggal bi nga wutale ko ak bis ba ko jiitu ak ba say topp ci wàllu soppi koy soppi xiiwal kër gi ak jaamu yàlla gi nga daan def ngir santale ko sëriñ bi borom kon bis baa ngoog nañ ko jàpp te xam ko te gën a xamit ki nu am mooy kan te bañ a complexe ñun nit ku ñuul na complexe dañu romb lool waaye am nañ loo xam ne ne nit ku xong am ko nit ku weex amu ko waaye jot naa ne li ëpp ci ñun xamuñu ko te xéewal la de ndax ab yonent mës a wàcc doon nit ku ñuul ab yonent mas ta wàcc wàcc Sénégal te ki nu am de nun ñeewuñu kenn kon loolu waroon nañ koo xam buñ ko xaman kay neex am nañ ko kenn amul fàggal noonu lu kenn mas ta fàggul nit liñ ci am ak dégg nag ñu bëggan ko see leeral mooy ñu xam sëñ bi lan la doon xeex ak lan la bañal ndax ñu mën ko see jàppale sëriñ bi de xeexu ko ne dinaa julli ñu ne ko doo julli xeexu kon ne dinaa woor ñu ne ko doo woor ay nit ñoo fi ñëwoon an fi benn système muy aw doxaliin ak ku gisiin woo xam ne lépp dafa jóoyoog islaam bëgg ko tasaare ci réew mi bëgg koo def ci njaboot gi bëgg ko dundaloo nit ñi mu ne du ci dund sama njaboot du ci dund loolu moo war leen fitna yooyu yëpp ci sababu saa si kon nan lañu war a mën a taxaw ba jàmmaarloo ak loolu ba loolu fi tubaab bi andi woon bëgg a soppi suñu jikko bëgg a suñu melokaan bëgg a soppili suñu doxalin sëriñ bi bañoon ko ba xeex ko ba mu sama borom nungul nun ginnaaw bi ban taxawaay lañ ci war a kon war kenn ku ne na xoolaat sa bopp ba xam loolu tubaab bi bëggan ndax yaa ngi ko siy jàppale wala jàppale woo loolu sëriñ bi bëggan yaa ngi ko siy jàppale wala yaa ko koy kenn ku ne na ko xool xool ko nañ xam ne ay jullit lañu di ay murit tey ay nit ñu ñuul lañu duñuy tubaab dañuy américain du ñu leneen nit day gëm boppam même ñi nekkul ay jullit sax dañoo gëm seen bopp am na ay nit ñu xong ñoo xam ne kenn mënu leen soppi kenn mënu leen influencé te sëriñ bi xam ne ko moom benn influence lu am mooy yàlla suñu borom loolu sëriñ bi moo nekk ci kanam moom la ñu war a kon nañ xool ndigal mi di ko jéem a jëfee di xool tere mi di ko jéem a moytu te leneen lu ñu andi lu dul loolu ñu won ko ginnaaw loolu de bu doonu ko islaam sax ak nit a laaj na ndax nit daa war a gëm boppam nit daa war a gëm boppam waaye warta nekk al topp li ñuy wax complexe te si olof boo ko duñ firi mooy nit ku doyee di rek nit ku doyee koo xam loo ko andi rek mu jël te du am lenn yëfi boppam te lu mu am lu mu baax baax bu gisee la ko gën a suufe sax mën naa sànni loolu jël loolu nag jàpp ne ay nit ñu bari nañ fexe bu duñ ci bokk sëriñ bi lim andi doy na sëkk te ku ci jàpp dootoo soxla leneen kon nañ fexe ndono lii moo andi muy islaam joo koŋ joo xam ne ne ginnaaw bu fi yonent bi jógee moo fi andi bil mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuwul xarra wa inni ahmad ñenn jàng lil mustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatuwul xarra wa inni ahmad ne li fi yonent bi andi woon te mooy islaam ji koŋ te mu dem ba kenn xamatul fu mu nekk moom laa andi bees salaat ko ba mu bees may leen yoon waa yoon waa ngoo ku bëgg jàll jàll kon rek waaye buñ dëwee yoon wi mukk dañ jaar si yoon wi ñu sëriñ bi tëral te bàyyi yeneen wi yoon wurut moom yàlla na sëriñ bi defal dégg ak topp te teg nu siraatal mustaqim yàlla na sëriñ bi xiir ci lépp lu ko neex yàlla na sëriñ bi moytu na ko lépp loo xam ne ab safaan la bi jaay seexul xarit wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa alhamdulillahi mu